Sénégal. dikkati na ana ñu noon ne saaga yàkkamtee xeex la bés bi la journée Abdou Ndéné Sall day taatu ndaa la naan leen yéen a ni woon bi Sénégal moomu ko te ilaa leen la teer Abdou Ndéné naan coow li ab sabotage la teer bi cent pour cent Sénégal moo ko moom beneen contrat ci boppam la ñu xaatim ak SETER looloy dëgg tribune yéen a kaay ne ko saaga yàkkamtee xeex la kon ma ñëw yow Abdou Ndéné Sall li ngay wax gëmuñu ko du dëgg yéen a kaay bi dee woo xam ni nii def nañu ko ci situation boo xam ni SNCF ma ngi koy manq di ko muucoo kopparu askanug réewum Sénégal moo ne fii la ko Bougane Gueye Dany wax moom jiital gëm sa bopp keroog ci conférence publique am bi te laataa lool sax yàgg na di leen di wax naan leen TER bii Sénégal amu ca dara gañewu ca dara xanaa kay di ca perte di jël alalam nag di ko jox nasaraan si Bougane a gëm sa bopp yàgg wax sénégalais yi naan leen ñu ngi leen di nax ci TER bi def leen attention ci TER bii lu ko mooy daa ngeen matt seen baaraam wu cax Bougane mel ni buy mattu ca wet ga leen wiccax ngeen wala wiccaxu leen la Figaro naan sénégalais bu wiccaxul day complice nga ndax nag saa si tembe la ma leen di xamal moom dañu ma ca teer bi Sénégal moomu ko bugaan ne Figaro tegal foofu sa loxo ma ne la gannaaw ba nga xam ne def nañ suñuy investigation la ñu gis moom moo di téeméeri milliards téeméer dégg ngeen de moom la nguurug Sénégal di dépensé ci teer bi waxtu woowu ma la fukki milliards ak juróom moom la ci Sénégal di gagné waa Figaro ni ko borom gëm sa bopp taxawal rax ci dolli lu fukki million fay ñaari DG yi nga xam ne amuñu benn expérience bàyyi bàyyee koo dëkkuk nasaraan sa ñu leen koy fay nag ci liggéey boo xam ni boo moytul dana màccam gëy ne ko waa Figaro la nguurug Sénégal bu jëlee téeméeri milliards di ko dépensé ci teer bi waxtu woow fukki milliards ak juróom la teer bi di génnee moo perte ñu juróom ñaar fukki milliards ak juróom xaalis boobee fu mu mënoon dugg ci gafak réewum Sénégal bari na bugaan naan leen dem leen ci biir réew mi nga xam ne du ma fa gëj su ngeen fa duggee daa ngeen xam ne juróom ñaar fukki milliards ak juróom yooyee wallaay mënoon na jooyanti seenu bëccëg yi ñàkkum ndox kurang ñàkku bërëbu fajukaay wala sax fu soxna yi di muccee gaa yaa ngi faatu ci biir réew mi Bougane Gueye Dany ne waxtu woowu nag ñi ngi yàq suñu xaalis ci teer beeg nasaraan si mooy dëgg Abdou Ndéné ci Vox Populi ne ñoo moom def leen de ñoo moom turbine yéene kaay ne ko gëmuñu la Walf Quotidien ne ma ku gëm saa si tembe ni président Macky Sall mi ngi ci guute président mi ngi bindoo ni tama ma waxati ko ña ngi koy ci boor bu ne sénégalais yi moom bëgguñu troisième mandat bi leer na Abdoulaye Dieye ci turbine yéene kaay ne moom président Macky Sall mooy suñu candidat 2024 amul laam-laamee woote dajale fa mbooloo moo xam ni maar day taali moom Abdoulaye Dieye jëlaat Thiès nag daal di tegaat ci baaraam tribune yéene kaay ne rax ci dooli di woote jàmm ak salaam ci réewum Sénégal Abdoulaye Dieye di woote dal ci réewum Sénégal Abdoulaye Dieye di woote it jox nopp président Macky Sall ndax ak luñ mënti wax Abdoulaye ne mooy sunu candidat tey mooy sunu candidat ëllëg moom président Macky Sall Walf Quotidien ne ma ni leen président tama la bindoo tey troisième mandat ñu ngi naan kon du fi amee allié mi yaa ngi xeexoo ak moom moom président Macky Sall njëg yi cher lool Mimi Touré daal di di ko yekk keteme l'évidence yéen kaay ne ma dégg wax joojee ñu naan boo tëbee dal ci na la tëb président Macky Sall jugee na ci Karim Meïssa Wade jugee na ci Khalifa Ababacar Sall dal Sonko dana yombam du yomb en tout ngi guddi gu bët setagul de waaye nag yéen kaay bi ne ma jamais 203 de def na xaaf mu jàll def Karim Meïssa Wade mu jàll Sud Quotidien ne ma dina dem procès ba wala du dem procès ba moom Ousmane Sonko lii si tembe mooy bi en tout cas Pastef moom seenu tontu def nañ ko stand by critique ma procès bu mooy mbaa du doon ab procès a en attendant diggam ak bu Mame Mbaye Niang Sonko la dafa nekk ci tànku bañ wuy ji mbaa la daloon gaayu laase nag du ko dal ndax xam le na ni moom Ousmane Sonko du ca bokk te gaayu laas yi bañ defee lu ni mel juróom benn weeru kaso lañ leen tëj bu ànd ak sursis waxtu woo critique yéen kaane ma ba nga xam ni moo dox seen diggante ak Adji Sarr suite botili opération wër ndomb lañ fas yéeneel Ousmane Sonko naan ko wuy ji woo tey wuy ji woo ëllëg waxtu woow l'exclusive yéen kaane ma ñamu àndoon ak démb tey tey ña ngay dal ci kawam Mollah Morgan yéen kaay bi ne ma mi ngi bàyyi ay bomb jëmale ko ko kon ci Sonko ne yor na ay audio vidéo Ousmane Sonko yoo xam ne maar day taali duppee ko nag opération biir buy daw ak opération désamorçage bu Pastef yéen kaay bi ne ma waaye fa mu njëkkee moom baaxul ndax photo ba mu njëkk génnee gaa yëpp xam na ne ab montage la molaa naan leen teye leen rek de ndax saa si tembe nag mënu leen maa teye lii ma yor dafa ànd ki audio booba réew mi ko di naan man Khalifa Babacar Sall day mi ngi ci tànku fexe ba président Macky Sall du doon candidat ci réew mi waaye tam ñu daal di koy nangul candidature am bii les éco mu nekk moom Khalifa Babacar Sall nee na daal ñu résister de waaye résistance nag bokkut ak insurrection taal réew mi résistance bi ñu wootee moom moo di lànk tey lànk ëllëg tribune yee de kaay ma ci résistance boobee jaañ si mbeng day mang ca yekk keteme leader bu yeewee askan wi daj leen ci seeni ànd nag naan leen mënu leen taal réew mi ci ndajeem plateforme Macky 2024 sampar président Macky Sall ci la yëkkatee yi le kaddu ci tiwaawan ci teewaay ay meeru ñing Ndeye Saly Diop Dieng Thérèse Faye Diouf Maysa Maye Koor Diouf ak Mamadou Lamine Massaly Mamadou Diagne si mbeng moom it naan mooy sunu candidat na leer turbine yéene kaay ne ma docteur Babacar Diop nee na candidat la te kuy wax ak président Macky Sall la ko war a njëkk yeetee mooy na wax ci scandale financier yi nga xam ni mi ngi ci réew mi waaye tam opposant yi nga xam ne mi ngi leen di tëñ-tëñal ku wax tàmbalee am jafe-jafe ci réew mi moo war a dakk le quotidien le quotidien ne ma gaajo day waxtu wow ma ngay régler ay compte am moom ak nguurug Sénégal l'observateur ne ma booba coow laa nga ba na leer ab loi lan ca naroon daal dinañ koy tàbbal géej premier ministre bi saa si téembe mooy saisir conseil constitutionnel le soleil yéene kaay ne ko boobu Macky Sall day ma nga bëgg nag ñogal mbay mi dugal ci ay moyens yoo xam ni maar day taal tribune sport li nga xam ni day moo dal ak lu làmb Serigne Modou Niang mu production moo daal di làqu tribune sport naan kon mission accomplie ab nit koo xam ni ku sincère woon la ku franc woon la disponible woon la doonoo nit ab militant boo xam ni mës ta weccee kenn ak PDS l'exclusive yéene kaay ma boobu ñàgg ak ñàkkurab dalloo nañ ab complexe sportif bu yees boo xam ni gànn kebee fa jaar njiital mouvement faj mbébétuk askan wi xamal ñu yëngu ci tàggat yaram ci zone bon boobee naan leen mbir ma seen mbira polu synthétique bi toppatoo leen ko vestiaire yi ànd ak grille de protection seen yëfa bu ngeen di amal départemental jarta wàll yaan yéen moom moom l'indépendant ne ma wàll yaan yi day saa si tembe daal dinay jural nag marché occas musiba boo xam ni maar day taali yéen kaay bi ne ma lakk gu metti metti lool moo am ca marché occas lu toll ci juróomi téeméer ci bërëb yoo xam ne dañ fa doon jaaye daal di lakk l'indépendant ne ma ca maquette ba la jugee de maquette boo xam ni nee lu njiit njaag ci lakku marché occas moo fay njaag libération yéen ci coow li ci réew mi gang bii nag moo cay njaag ñaari faux policier leen yoo xam ne benn indique bu police ak bu gendarmerie moo daal di dugg ci seenug biir nax leen yéene kaay bi ne ma ñu ne nag ay faux policier lañu benn auxiliaire de police bokk ci benn sapeur pompier boo xam ne dañu ko rajee benn commando boo xam ne dañu ko libéré te commando boobee jàppee woon nañ ko sax usurpation de fonction libération ne ma saa bu ñu xëyee dañuy xool annonce yi nga xam ne ñiy jaay seen bopp def ko suñu paree jël numéro ya def descente seen kër ya ne leen ay policier lañu caxat caxatee seeni appartement violents l'observateur ne ma dañ ko doon boole ak di violer ñi nga xam ne dañ doon jaay seen bopp libération yéene kaa ne ko ma ñëw rek def nañ ñaawteef bi diggante Kër ma Massar def ko Zac Mbao def ko Marissac ca Ouest Foire les éco ne ma te loo ci xamul coow la coow la mooy njiital sécurité bu Mixa moom ci boppam bokk na ca gang ba coow li coow li mooy ak lu mën a am ñuy ñaan jàmm te yendoog jàmm